salaamaaleykum salaamaaleykum ah gars yi les abonnés gars yi siyaar naa leen de ah gars yi Amadou Baro Sénégal la ah, yow mi tombé si vidéo bi soo abonné da ngay bës bouton bu xonk bu xonk bi rek gis nga bouton bu xonk bi ngay bës boo ko bësee nga bi moo nekk si wetam bu ko defee da ngay abonné vidéo si wax ne Amadou Baro Sénégal aktivis patriot lanceur dalet. dama ñew taxaw andi wat manam sama gis-gis si way rew mi way rew mi nak kuy wax ku ne te waxo dubai porte à porte yaakar na romu ga sujet bi dubai porte porte sujet la ma deglu Imam Kante, Imam Kante nak ko xamul dengo ko si Sénégal waaw imam bo xamante la mi ngi tek li mi tek lepp ci yoon amo fokay koy jëm tobu mana waaw mi ngi joxe ay manam manam mom naka la ko wara meuna tuddé sax mom xalaatam ak gis-gisam amu si farlo mom ci deug la far farlo, comme nak mom mom si deug la far té ñun aussi bëgg nañ fasiyé nañ nañu lépp lu ñuy tek ak lu ñuy xol di si nekk mu doon dëgg dëgg moo ñu tax kon yéen nitu dëgg yi ah nitu dëgg des valeurs kon ñu ngi leen di woo si suñuy vidéo waaw di leen wax nag yow tamit boo mu mënee partagé nga partage tey moom taxaw sell bi dañuy defar dañuy ànd ak Imam Kanté bu ñu ànd ak Imam Kanté nag dañ koy poser ay questions muy répondre bu ñu koy poser ay questions muy répondre maanaam ñuy développé si kaw waxam ñun ñuy wax di xalaat. di argumenter di expliquer di mettre de l'ambiance ñun foofu lañ toll jamono ji parce que Sénégal lañ nekk Sénégal lañ nekk Sénégal lañ nekk nag waxee fi dafa metti moo tax dañuy ne dañuy tàmbali léegi jamono ji moom jukki rek la ñuy def dañuy jukki dañuy andi waa ji teg mu toog waa ji bu toogee wax ñun ñu jukki balaa ngeen ñuy dëkkal fuñ dëkkul naan sa waa ji day xeex ak day xuloo day saaga ak day xaste waaw parce que loolu la ñuy bañ jamono ji jamono ji réseaux sociaux yi dafa jax te li ko tax a jax nag du dara lu mooy législative yi ñu jëm waaw bëgg naa nag tamit sama gars yi tamit ñu ñu xool tamit sama waa ji Pape Djibril Fall li gars yi naan dafa dafa dafa dafa jël liste jàmbur tamit bu dee def bu dee dëgg la aussi gars yi teg la nga si yoon teg la nga si yoon mais législative yi man fu mu jëm nii day na waar yi te aussi tamit maa ngi dégg ñu naan. këyit dafay manqué këyit papier dafay manqué te papier dafay manqué papier maanaam bu ñu la nee dafay manqué journal yi nee nañ dinañ dem dem nañ bu ñu buñ ko maanaam saafara buñ ko saafarawul bu ñu lijjantul problème papier yi ñoom danañ am problème bu génnee journal pour jaay léegi nag jour léegi nag loolu bal da sond la pour yéen ñii di dox doflu nekk si affaire yi di di di dox di dox di tëli tëli pour bu leen bu mu leen bett bu leen nee. buñ leen né seen liste manam seen liste ki liste opposant yi manam maanaam buñ manam liste candidature yi ñeen wara voter ñeen wara voter liste yi yoy ñeen wara voter diko lem bu mu jekk dugal ko ci enveloppe dugal ko ci urne bi bu mu leen jaxal buñ leen né dafa manqué buñ leen né bu waa askan bi dañoo manqué waaw te bu leen jaxal tamit gaay gaay fi lu ne mëna am parce que affaire de pouvoir la affaire de ngour la affaire de xëccoo la affaire de jël sa wàll la gars yi jamono jii seetlu seetlu leen xool leen gars yi ni ñuy def xool leen gars def gars yi fal jéemuñu falu de non gaay yi falu mais seen wàll li ñuy jël waaw waaw ma nag xaw ma xaw ma nag kan la ak ñan la waaw mais yow mii di seetaan vidéo bi bul bul wàcc concept bi Imam Kanté la ñuy wax si Dubaï porte à kon après générique bi ñu tàmbale question réponse ak imam bi ay gars yi question numéro un waaw yaa imam yaa imam man de ñun gars yi dañuy laaj influenceurs yi ñoom influenceuses yi gars yi di wax loo loo loo xam si ñoom tamit ak tamit doy na waar rek moom nañu ñu fatt nañu imam dëkk bi ma ci am mooy déjà euh, ñàkk dal bi am ak ni ñuy manipuler nit ñi trop facilement léegi ci affaire yooyu yow ñoo ne ay nu mu ay influenceuse ngeen baal ma ay jigéenu caaxaan yoo xam ni duñu royukaay ci dara boo leen xoolee seen jëmm nii rek da ngay tiit tellement boo gisee maquillage beeg seen waxi nag seen lépp day woote ci doy waa ci lu charnel. waaw imaam léegi bu ñu moytuwul bu ñu moytuwul numérique bi maanaam wàllu réseau sociaux yi ak influenceurs yi influenceuses yi fan lañ war a mu fan lañu jëm tamit lii day na waar rek. bu ñu leen bàyyi àdduna bi fii ak euh, numérique bi dinañ taal àdduna bi koo ci gis ci ñoom mu ngi am train de vie boo xam ni liggéeyam mayu ko ko waaw mu ngi tukki fu ko neex di dundee num ko neexee. ci alal bu bare bari boo xam ni même ñi ne yore ay entreprise dund dund boobu luxe. kon gars yi xoolal ñoo ko déggandoo ah waa léegi imam imam imaam imam gars yi imaam gars yi tamit li ñuy wax tamit si affaire yi tamit imam li li li yéeme na yees na te Sénégal tamit dëkku valeur la dëkku diina la buñ demee bay dégg ay jigéen yoo xamante ne ay sénégalais lañ imam imam loolu loo ci wax imam. imaam. ay Dubaay ak nangam naam yii day am Chine day am Dubaay day am France. day am fu nekk léegi nag ku nekk yaa war a xam sa bopp ñaareel ba tamit c'est pas parce que dañu tudd ay nit rek nga ne dëgg la tey ñu ne am na 43 sénégalais rek nga ne waaye sénégalais yi dañoo yàqu naam yaa ngi tooñ de 43 sénégalais ñan la. yaa imaam waa léegi waa léegi islam la la wax ci sunu sœur yi buñ demee ba toll si diggante ko leen toppatoo ak naka la demee imaam leeral. islam bi ne kii borom kër toppatoo wala magam wala société bi top tomé buñ ko bayyi ci mbedd bi tay xolal jigen bi taxaw ci mbedd bi ñu naan euh, dafa xiif dafa mar ñi wax production par nécessité c'est très très rare jigen def production par nécessité même bu fekkee loolu sax xana benn fan lay doon wala ñaari fan pour nga lek dara mais diñ ko def ay atiya nécessité xana bo defee production une semaine ba am ci benn 100000 euh, sax xana nga ne xaaral set benn petit commerce. wa ya imam ya imam bir mi doy na waar de seeg wax ya imam ak lekk lekk ay ay ginnaaw lekk sobe imaam loolu doy na waar de imaam biir Dubaay la xewee. am fu nekk affaire njaaloo ba njaaloo ak mala ay kii sobe bu fekkoon amul woon bu fekkee Dubaay la xewee woon scatologie en français mooy di jëfandikoo ay neefe rek ay sobe tur bi fan la jógee fekkoon xamuñu ko li naar bi waxoon. imaam yaa imaam bëggoon nañu xam de lu naar bi waxoon. nettali ñu loolu naar bi waxoon. li naar bi waxoon xam naar bi dafa ñëw ci benn dëkk euh, laajte wanag bi ñu ne ko wanag baa ngi ndële mu gàddu saagam dem ba mu yà euh, mu teg saagam dem ba mu yàgg ñëwaat jël saag bi waa dëkk bi ne ko yow li ci wanag ba ngay dem looy yóbbu yu diis yëpp ni kuy dem wanag koy woyof moo gën bàyyi fi saag bi rek fii sàcc amu fi naar bi ne leen ah sàcc am ñu ne mu ne tóor bi lu mu fii wut tóor bi lu mu fii wut bu fekkee xamu leen sàcc sàcc amu fi lu fi indi tóor kon scatologie est-ce que Dubaï ñoo ko créé terme français la kon ñoom xam nañ mooy lan zoophilie Dubaï ñoo ko créé di séy ak mala am na dëkku tubaab yu mu dagan temps yi rek maa ngi doon gëstu nii Danemark Norvège dafa am ay groupe de zoophile. ah waaw Imaam loolu yéeme na de waa léegi Imaam kon nag ñu ngi ña ñu ngi lay laaj ñu ngi lay laaj ngir xam waaw lu waral coow li coow li ëpp lii wax ji lu ko waral di doy na waar rek lu waral mu jóg wax ji. ko ci ay intérêt mom dafa am ay nombre de vues da nga gis influenceurs ay 1 million d'abonnés la am ak xeeb nañ ko jëm kaw mais loolu dañ koy jaay ñom dañ koy jaay donc vidéo bi liko ko kiko ki ko génnee kooku nekk nii mi ngi ci xaalis bo xamni ni xamoon lu mu toll ba tax mënoon na gis loolu bañ ko génne parce que waru ko sax génne parce que lu mel nii xale yi diko gis ñëpp ni mënoon na ko gis sax dal ni lii rafetul ci deru jigéen ak ci xalé yi dama koy neub mais daf koy génne parce que xam na ni bu ko génnee mu am un million de xaw nangam cinq cent millions de vues ñu fay ko ci plateforme am am na ci kenn koo xam ne maa ngi koy suivre mu ne temps yi maa ngi maa ngi dëkk sàngam euh, ñi ñi abonné ci man ñoo ma payal voyage foofu ñi abonné ci moom ñoo ko payal voyage lan la séq ak ñoom bañ payal ko voyage te mu am ñu xiif à côté à gauche à droite ñu bañ leen a jox dara di jox benn influenceuse boo xam ni dafa suur këll ah euh, kon nga xam ni il faut faire très très attention ah imam waaw imaam léegi nag léegi léegi looy wax ci Sénégal sunu sunu sunu dëkk bi looy wax ci Sénégal ak jigéen ñi tamit di jaay seen bopp. am na ruq yoo xam sañu sax ñu leen faa dem waaw parce que xam nga à peu près la fay xew mais tant que seen ruq la foofu ak ay maison close ak ay soirée yooyu ñu fi def nii ah boole ki Sénégal fii la production dañ ko fi autorisé. Eh, yaa imaam yaa imaam bëggoon nañu moom nag nga wax wax nag sunu sœurs yi sunu sœurs yi soit disant les travailleurs travailleurs de sexe ñiy jaay seen bopp Oustaz Imam bëggoon na bëggoon nañ nga sànni tuuti kàddu si ñoom. benn baaxu ci benn baaxu ci te tam lii occasion la pour que Sénégal ñu yëkkati question boobu nañ fi araamal prostitution ba nga xam ni ku koy def da ngaa làqu wala xaw ma looy def mais bu mu nekk loo xam ni tey jii ñi ñiy prostitué ci suñu sœurs yi fii Sénégal mais ñan la ay néew ji doole rek la ay néew ji doole tey jii ñi fi am koppar euh, wala nekk ay kilifa.

xam ne àndul ak dignité jigéen léegi ñu naan ma woy euh, naan sobe loolu mooy gën a nité di mais production bu fekkee dëkk boo xam ne la dafa lay euh, nañ ko bàyyi noonu nangam subhanallah ay yow mbokk mi ay mbokk mi ñu ngi lay sant di la gërëm yow mi seetaan vidéo bu mu jeex ah wax li moo nekkoon vidéo bi ah taxaw seetlu poser ay question sunu imam mu wax ci tolluwaay réew mi di leen wax na nag gaa yi nii lañ koy defee ni lañ koy défé hein ni lañ koy défé sa yu amé jot rek dinañ ñëw taxaw sétlu ci benn question xotal waxtaan ngir ñu mëna comprendre gaay di leen wax né Amadou Baro Sénégal yow mi abonné gul bul fàtte waale bësaale touche bi bu xonku bi nga abonné walé bul faté walé cloche bi ndax vidéo buñ jot dugal rek nga jot ci hein ah jëfati Imam Kanté la won ci Dubai porta porte ak tolluwaayu rew mi taxaw setlu Amadou bar senegal YouTube. rek taxaw pour won len activiste bi ànd ak Samba Abidjan ak activiste bi ànd ak peuple bi ñun nak activiste peuple bi lañ na leer kon xani yi len leen tambale nañ de législative lañ jëm léegi nak dañuy commencé wat divertissement. jaxase xumbaral yaa ma gën a xam politique